ilaahi jàmm rahmaani jàmm rahimi jàmm yàlla jàmm yàgg sekka njaay ak atumaan ma njaay ngoon ni tënk géej abu dem ma bàyyi maar ma ñu jom jabax jëm ko fandeen maa ngi jooy ongo njaag mu umi njaay mi ñu lippee mu umi la kere mbaaxaan ma des si teeni jungo ya maana salla njaay ma xorojo buur géej ak mbay njaay ma des sa beeñ ba bismillahi fenkale menkale fenk na ci jant yàlla bi yàlla mottali fajar majar tarfil moo di këng sa loxo mexee ma loxo mexee abdou karim abdou karim tuf na góor tatar na jigéen kan sun kaf sun dubukin dubukin dubu fa yàlla bismillahi fenkale menkale fenk na ci jant yàlla bi yàlla mottali fajar majar tarfil moo di këng dalali muhammadu walali muhammadu kumba sara Guru Guru dumbe Guru tamba dumbe jasi tamba dumbe jasi tamba dumbe kufrun toke kufrun toke takasumu toke takasumu toke luy metti toke la tandiri tandiri ngafu ngafu fardan fardan mana alay nabi jamma toke alay nabi jamma toke yen digante nit ak jinne jaan seytane kaya fi ñak subulug musulung dundulung dundulung kondorong kondorong maymuna tenk sere menk sere ajunata farlel tawarani min kurdu koye dukoya lam da fañ da fañ kalku mukk misal wal jole kumbangali séréer sango ñi dëkk dëbbu ndakam ñoo bënul soosé asi ñi fi woon ima yàpp sey bañ résew ko ci njanja fanaan ko ci ween bulaan ko ci mu réew suma ma daanoo mu dak kañal du ko fajj yalla def nako ko sama dooley sama xar suma jaxé ba lambako sama xel dal sama jërëjëf Babacar maa ngi lay beugé ate babakar ma ngi lay kontaane bu baax a baax ba am nga jamm ñu lay siyaare bu baax di nuyu aduna nak yépp yëpp bàyyiwuñu kenn bu ñu limé dañuy jum waye mbokk yi nag ñu ngi fi nga xam moom mooy eh, crise centrale Doudou Seck waaye nag tey Ndiambour production moo fi woté muy bés bu rëy boo xam ne mbokk yi moo war a am le 30 avril moo dox ci Koumpentoum Boy ak Lac Rose waaye Petit Lo ak Mama Lamine nañ ci bëre waaye ki nga xam moom mooy Youssou Ndour ak Taxe nañ fi bëre waaye tey nag dañuy def première face to mooy première jàkkaarloo bi njëkk Youssou Ndour Taxe Koumpentoum Boy Lac Rose Petit Lo Mama Lamine Babacar da nga may topp rek may jël yenn si gars yi nga xam ne ñoo fi nekkoon boobu léegi di koy sele Babacar te da nga Fakar ma fekk fi kenn koo xam ne fi lañ ko fekk muy Assane production moom it di xale boo xam ne nii jàmbaar la na ko gaa yi xaar Assane noonu waajalee tey bés bi. ba oh, Badou Mbaye maa ngi lay ziare bu baax di la jox sa wàccuwaay vraiment ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yoonante bi di sant suñu ñaari waajur vraiment maa ngi lay nuyu di nuyu waa euh, axlu làmba yëpp maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax. nan ngeen di waajee face to face bi Lac Rose commence. waaw face to face bi vraiment euh, di euh, wax waa jàmbaar. Euh, ñu ngi leen di ñu ngi leen di accueillir ci ci li nga xamante ni waa ci li nga xamante ne moom euh, seen ñëw bi ci làmb vraiment parce que lii nii day yokk làmb vraiment ñu ngi leen di accueillir bu baax a baax di leen wax ne soyez les bienvenus quoi waaw ah, journée bi wax dëgg fa ah li ñu waroon def yëpp installé nañu def nañu lépp daal. fii dafa mel ni dafa fii moom macha allah moom macha allah vraiment lii moom ah dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin. kontaan naa ci yow. non macha allah man maa maa bëgg ci yow bëgg naa trop ci yow macha ba tey ñu ngi fi nga xam ne moom mooy si Doudou Seck waaye ñu fekk fi kenn koo xam ne ni kenn du moom muy suñu grand et du suñu lépp Linko ñu ngi lay siyaare waaw ziar euh, badu di kontaan trop te jàkkaarloo yow vraiment di Jakarta. aussi suñu cameraman bi ñaawul bi di war a teere tey. nañ di waajee bés bi. waaw ni ñu koy waajee rek mooy comme d'habitude rek xam nga ñàbb production moom mooy kër gu mag gi mooy borom xel yu yaatu borom xel yi nga xamante ne day xel yi di xalaat lépp loo xamante ne dafa war a jëmale Sénégal kanam surtout rawatina si wàllu sport rawatina aussi si wàllu culture. est-ce que mën nañ xaar tey Boy ak Lac ñu non xam nga ay lébu lañ li ñu naan ay lébu lañu pire ndax Lac Rose ku ko gis ku ko xam xam ne Lac Rose boo taxawee dalay attaque attaqué te it continué koo xamante moom du delloo loxo doomu barñi boobu kon tey yaakaar naa ne fii moom ah dina métti kon daal yéen waa LVD pare ngeen. pare nañ si lépp te nañ leen won yoo xamante ne dina garaaw ba si kanam. <laughs>